gépp suñu papa ji fi wàññeeku di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana di nuyu waa jaxaaw di nuyu waa jaxaaw di nuyu waa jaxaaw di nuyu waa cees gépp di leen sant di leen gërëm di wax ni am nañ contentement bu baax a baax a baax ci ñoom gis nañ taxawaay bi parce que ñun ni ma koy waxee rek amuñu lu dul jaxaaw waaw fu ñu mënti dem lu mu guddi guddi jaxaaw la ñuy ñibbisi kon tey jii nii bu ñu amee bis yoon la tey jii nii képp kuy doomu jaxaaw nga jàpp ci jàppale fils de Samba jaw parce que doomu jaxaaw wolof Njaay di wax rek yóbbante galgal ubul làmm waaw moom dañuy këpp na suñu ñaari reer ñu ñoo leen njëkk a reer parce que maama mii nekk suñu kotsa moo njëkk a këpp seen reer moo njëkk a daan magam waaw kon koy bu dee këppi reer ñoo leen njëkk a këppi reer euh, te dama ni ko du du du mbër yëpp la ñuy caxabal wax naa ko budul benn di ñaar nee naa ko làmb ji amoo ji lu dul moom nga def sa yaakaar bis bu la na nattoo ba nga jug pour caxabal ma muusante lañ lay fare waxuma la sax estade ba waaye muusante lañ lay far jee di ko wax rek mu waaj man li war a wax rek ñun ñu ngi waaj nekk école de li Samba Diaw di waaj am ànd fu suñuy coach lu ñu wax defal ñu def lu ñu tere ñu bàyyi def nañ li ñu war a def yëpp fi ne ñu ngi ci dernier réglage yi li ci des mooy dimanche jot ñu dem ñaan yàlla mi nga xam ne moom moom ndam mu may ñu ndam ñibbisiwaat feete ko jaxaw bu soobee yàlla waaw lu mu gëm la parce que mëninam la parce que ku xam Mor Sarr xam ni mbirum tànk la caxa bala xattar bi loolay bëree wet lay bëree parce que mëninam la moo tax mu koy bàkkoo di ko ndamoo waaye moom bu ci amee benn ñun ñu ngi jël fukk toog nëbb ko di xaar bis ba jot ñu génne ko bu soobee yàlla waaw Kara defe naa ni ku far ku war ñeey ba wàcc ko leneen loo waraat warit lay doon defe naa ni ku bëree arobase mu xam ne naanaanu làmb la lu ne mu def ko ci làmb ci gàttal rek jërul may lim ñeneen ñi ma bëreer Abdoulou ndaanaanu làmb defe naa ni benn defet laa man maa ko teg xam nga ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon defe naa ni su may bëree Mor Sarr du wax bi muy wax rek moom laay bàyyi xel te du ma gan ci làmb at yi waaye yàgg nañ ci làmb doona duñ ci gan ba nga xamante tey jii di nga wax dara ci làmbu ma koy sóoraale yàlla xam na ne loolu ay waxi comédie rek laa ko jàppee man jàpp naa ne arbitre bu bu ñu demee le 31 décembre luy xew ci làmb ja maa koy def bu soobee yàlla. waaw sant yàlla rek parce que li may wax chaque jour rek ñun école de li Samba Diaw dañoo am lu jafe parce que xeetu mbër boo am boo yaakaar ci àdduna rek am na fii ci école de li Samba Diaw mbër muy taxaw mbër muy dem mbër muy bëre mbër mu dul bëre lépp am na fi kon sant yàlla la am nañ ñuñ ko waajandool waaj nañ ko ba pare li ñu war a waaj ci xeex ci bëre lépp di ñaan yàlla rek dimanche yàlla ànd ak ñun bu soobee yàlla. waaw liñ ciy xaar moom defe naa ni kenn doo doon waxati làmb Cees doo ci boole jaxaaw ba ñax ba ba promoteur yi koy tëgg sax ñoom ñoo koy wax defe naa ne waa jaxaaw ñu ngi waaj làmb ji ni ñu ko war a waajee xam nga di xaar euh, dimanche jot ñu génn jaxaaw gépp génn ànd ak seen doom gunge ko ñaanal ko ñu dem stade yàlla defal ñu ndam ñu ñëwaat féete ko jaxaaw bu soobee waaw dañuy kuy dem xare faaw nga yóbbu say arme yëpp rek parce que bëre dóor la ñu wax waxuñu bëre simple bëre dóor la wax dañ koy préparé ci bëre préparé ci xeex bu nemee làmb ja bu làmb ñu xeex bu laajee bëre dara bettu daal moo tax ñu takk gant di boxe di bëre di contact bu demee làmb ja rek lu mu laaj bu soobee yàlla ñu def waaw si àddi ba dégg nga moo xam ne ko Mor fi mu amul sens parce que fi mu jëlee combat bi baaxul parce que fi jaxaaw soxlaa fi la jëlee combat bi te jaxaaw defe naa ne bu soxlaa moom euh, ma ma ma tombe ci soxla bi dal ci sama ginnaaw kon tey jii nii lépp lu may def rek war naa koo xam wala mu doon lu leer mbaa tax na combat bi jaral na ma lu ne combat bi damaa jaral ma teg ci sama bakan combat bi dara dara du loo xam ne dinaa ko ci maye. damay ñëw teg combat bi moom stade ndam rek moo fay jëlee ba dee kon moo tax combat bii nii ñu doon combat bu ma fonk xam nga maag sama rakk bébé liiru xam nga ak euh, mbër pompiteer ñu ñëpp ñu war cee bëre. leen ñaanal ñoom ñëpp suñu borom defal ñu ndam ñu ñëwaat feete ko jaxaw bu soobee yàlla. waaw man defe ni nag suma ma juumul Kara néew na lu may bëree combat man dong te amul ci équipe ñaar ba ñett bokk ci te yëpp suñu borom dañuy suturaal dañ ci ndam yi moo ciy ëpp ba ci bu mu sama sortie bu mujj bi bi may bëree ñett la ñu woon Dakar yàlla suturaal ñu ñett ñëpp ñu am ndam te ñoo daan bokk di entraîner ñoo daan bokk di fanaan maag Sa Thiès di bokk di fanaan di yeewandoo demandoo entraînement ak jiir yi ñu dem yàlla suturaal ñu may ñett ñëpp ndam ñëw feete ko jaxaw kon comme na yàlla defoon bee rek la ñuy ñaanal mu defaat ko bii ñu amaat ndam ñun ñett ñëpp ñëw feete ko jaxaaw bu soobee yàlla. waaw Thié dañ koy sant di ko gërëm rek li ma li may wax sa jour rek ñun ku yokk làmb rek dañ lay bëgg nga ñun làmb mooy suñu métier xam nga ñu juddu fekk suñuy kilifa daan ko def xam nga ñu ñëw donn ko kon tey jii nii képp ku koy yokk rek dañ lay jàppale dañ lay fonk dañ lay gërëm di ko ñaana suñu borom defal ko jàmm. ba bëgg ci bisam bi yàlla defal ko ko waaw di ko ñaanal bu baax a baax ci waaw pare moom li ma koy wax mooy waaw Anta Babacar Ngom mu ñëw jàpp ci combat bi parce que combat bi combat combat la parce que ku ne bëggoon na ko yàlla sottil ko ci ci mu tuddee ko làmb ji kon Anta Babacar Ngom ñu ngi koy woo ci combat bi mu ñëw jàpp ci bu baax a baax a baax xam ni làmb ji nii làmb la làmb gënu koo rëy làmb gënu koo riis waaw di ko ñaanal moomit it Anta Babacar Ngom li mu sumb suñu borom defal ko ci tawféex jàppale ko ci moo xam lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal waaye ñu ngi koy woodaa Anta Babacar Ngom mu ñëw jàppale ñu ci combat bi bu baax a baax a baax a waaw di santaat école de lutte jaw bu baax a baax di sant suñu coach yi amuñu seen fay amuñu seen fay parce que guddeeg bëccëg ñu ngeen ak ñun di sonn leen di jara yàq seen nelaw 4 heures du di ànd ak ñun di dem nootoo ci ay magim jëmm ñu nekk ay xale yu ndaw xooluñu lu ñu am ak lu ñu amul soxla wuñ suñu dërëm ñoom ñooy mujj di jël seen xaalis di ñu jox nga entraîné ba si yàgg benn course wala boqala dara leen demal jëndal nangam ak nangam kon ñooñu amuñu seen fay dañ leen di ñaanal suñ borom defal leen jàmm ñoo xam liñ bëgg si ñun yaakaar ko si ñun yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla na leen yàlla defal jàmm ñoom ñëpp course yi champion Mamma Père Babacar du set Modou xam nga ñi ngi leen di ñaanal grand Ismaïla moom it da ciy sonn ñëw bàyyi liggéeyam jàpp ci kon ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di gërëm ñi nga xamante ni ji nag ñooy taxaw fils sa Samba jaw ci wàllu mystique am nga xam ni joxu leen dara di ci sonn u ci mel ni Pakali sama doomu nday Cheikh Déthié Papa Der ma Diop dañuy sonn ci man Iba xam nga di jël seen xaalis si dem fu di ñëw di ma indil takkal fii sangul fii xam nga kon ñooñu maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm xam nga di woo ci combat bi Modou Gueye borom mouvement waaw Modou Gueye borom mouvement pour la république maa ngi koy woo mu doon ku baax doon kuy dox ci social doomu nday Maseer maa ngi koy woo Ibu Xuma ñoom ñëpp maa leen woo ñëw jàpp ci combat bi xam ni combat la ñu am combat bu ñu ñor la combat bu ñu respecté la kon képp koo xamante ni jii nii am na am na ci man cofeer rek maa ngi lay woo ci ñëw combat bi nga ñëw jàpp ci di sant sama fans club bi nga xam ne dañuy sonn ngir man su ma amee combat dootuñu nelaw maa ngi sant ñëpp gàmmu président bi nekk fi waaye biraan a ngi ni taxaw ak njóog ak ama jéey yóbbaale xale yi ñi ngi ne ñoom ñëpp di ci sonn xam nga di gërëm suñu président Ibou caama moom it day sonn suñuy combat bàyyi liggéeyam di sonn si ñun kon Ibou Thiama ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant fan club xale yu ndaw yi ko dalee ci fàttali ñoom Absa Der ak Awa xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di ñaanal Birane dama wax ñu ko santati Birane dañ Birane Sall dañ koy ñaanal suñu borom defal ko jàmm parce que li ma koy waxoon keroog émission ba rek oto la jël jox ñu ñu fu leen neex dem leen ñuy dem entraînement di ñëw oto bi yàqu muy jël xaalisam di defaraat ci zaahir ci baatin da ciy jàpp luñ mën a wax ak luñ mënta wax kon biraan maa ngi koy ñaanal moom njabootam suñu borom defal ko jàmm defal ko tawféex moo xam lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal di sant sama mag sama sama sëriñ sëñ mataar nga xam ni su ma amee bis dama koy yërëm lu mu xalaat rek ni day mayantam dina fa dem kon sëñ Matar ñu ngi koy sant bu baax moog waa Touba ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu jox ko képp ku nekk Touba xam nga di sant waa Ndeer bi ma koy waxee rek di ñaanal sama sëriñ sëriñ Mamed Jullit yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi di ko ñaanal bu baax a baax a baax di ñaanal bépp axlil kunti yu di woo waa Ndanga waa Ndeer xam nga waa Guyet Sanc xam nga gëtti Lamjaan Kurek Joor Kurek Mbataar waa Ndeer Olof ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo Ngànkal ñëw jàppale seen doom waaw di woo Ameth Diouf maa ngi koy woo ci combat mu ñëw jàpp ji suñu grand masali moom it doon borom baax ñu ngi koy woo ci combat bi mu ñëw jàpp ci bu baax a baax di woo sama doomu ndey Malick Ndiaye doomu ndey Baye Jibi Fall maa ngi koy woo moom it mu ñëw jàpp ci combat bi aas sama rakk sama lépp day sonn sama bis mook papaam papa sama Ndiaye maa ngi koy woo ci combat bi Amadou maa ngi leen di woo ñoom ñëpp sama yaay koddu lu ne la may defal lu ne di ma fu ma toog woo aas wool mbër mu ñëw jël jox la kon sama yaay koddu maa ngi koy ñaana suñu borom defal ko jàmm moom njabootam yëpp di woo are jakarta yëpp yëpp yëpp sama are waa rabitaay ma ñu woo ñëpp abibu xam nga Bamba ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo Abdou Guèye xam nga ñu ngi leen di woo di woo waa marché jaaykatu tiis yi ñoom dañuy sonn sama bis open presse bi ñoom lañ ko tuddee woon far yàlla ñëw ak dogalam kon képp koo xam te ni ji yaa ngi marché rek naan yokkal ma jaay la rek ñu ngi lay woo ci bis bi Baye Fall Gandiaye ñoom sëñ Mbacke Goa xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci Amet Thiou waaw ñu ngi leen di woo ci combat bi ñu ñëw jàpp ci bu baax a baax a baax a baax di sant ñëpp ñëpp ñëpp aas maa ngi koy sant bu baax waaw di woo Assane Lo Ndam Siré moom it mu ñëw jàpp ci combat bi xam nga di woo képp ku nekk jaxaaw rek fii sa Samba Diop mi ngi lay woo nga ñëw jàpp ci combat bi di sant suñu caméraman yi journalistes yi ñu amuñu seen fay muy guddi muy taw muy nawet fu ñu leen soxlaa boo leen wooy ñu bàyyi seen lépp ñëw jàpp ci xam nga surtout école de lutte Samba Diaw lañ gën a sawar dama naan dañuy faral di wax sax naan ñëpp dañoo faral école Samba Diaw kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaw di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm yéen a xam li ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal ñi ngi sant ñëpp ñëpp ñëpp ku ñu limu rek da dañoo juum xel a fatu ngeen xamee ko noonu ñi ngi sant ñëpp di sant Géant sama doomu nday moom it day sonn samay bis démb daa ñëw dégg open press laay def rek mu jënd ensemble bu rafet indi jox ma xam nga kon Géant maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di sant Ibou Xuma di sant waa Jaxaaw gépp ku ma limul rek dama juum xel a fat waaye képp ku yow a Jaxaaw sant bu baax sooy Abbas sama doomu ndey maa ngi di sant ñoom it di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant école li Samba Diaw sama rakk yi ma fi nekkal ku ci mel ni Boy Jaxaaw xam nga ñoom Hong Kong dañuy sonn ci combat bi da leen a jaral heure bu ne la ñuy jug di ànd ak man xam nga ñëpp 500 fondé école li Samba Diaw bi yëpp daal maa ngi leen sant di leen gërëm di ñaanal ñëpp jàmm di kontaan ci ñëpp Kara di la sant di la gërëm di la ñaanal jàmm di la wax ni yaa xam li nga bëgg yàlla na ko suñu borom defal jërë ngeen jëf